Thank you. salaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan à travers DS Prod amati nañ mbégte kontante jàkkaarloo waat ak yéen ci seen émission kaay toog kaay toog nag dafa baaxoo di takk ay jàjjam di wëri ndaanaani tey nag ñu ñëw seet si ki nga xamante ni moom mooy Laye Kara ñu gën koo xam nag xàmmee ko ràññee ko bu baax a baax ci yoonu murit bi mu bëgg lool Serigne Touba waaye sopp lool Serigne Modou Kara ba tax mu duppee ko boppam euh, Laye ñu ngi lay nuyu. ñu lay baax a Euh, gannaaw bañ la nuyoo Ablaye dañ lay bàyyi rek nga nuyoog waa àdduna comme ni nga ko baaxoo di defee. waaw kon salaamaaleykum mbokk taalibe yi mbokk jullit yi ñu ngi leen di ziar yow di la ziar soxna si Mati. ñu lay ziar baax a baax di ziar sa caméraman di nuyu tamit sama baax a baax di sant maam Thierno dinaa bañ sante sëñ Tuubaa di ñaan sëñ Muntaxa Basiru mu yàgg fi lool te wér di ñaanal. maam Thierno Ibra Faat suñ bunt Sëriñ Tuubaa borom daar Nourène mu yàgg fa lool te mhm. noonu la ko naka noonu la ko ñaanee magam Cheikh Amadou Kara Mbacké mhm. waaw di leen bëggee baax a baax yéen. Mhm. Euh, balaa ngay ñëw ci présentation bi dañ lay bàyyi comme nuyu nga àdduna nga nuyu fans yi rek. waa ñuy nuyoo fans yi am na lu ma fàtte sax mais da gannaaw loolu damay nuyu sam papa. Papa Matar Gueye di ko nuyu baax a baax. waa fans yi ñoo nekk nii ak yaakaar naa ni. mënoon na gën a yaat dem dem yaatoo nii mais dafa bette daal. Mhm. moo tax mu demee ni mu demee nii. dëgg la nuy fan si xam rek ku la bëgg moom. mënoo mhm. ko fay ndax bëggee ku koy fay. dëgg na maanaam nuyoo fan si boo ko déggee mooy nga ne der ñu dégg sa baat xol yi commencé féex gars yi concentré wu ci seetaan mi. Seex Bamba laa ilaaha laa محمد يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بامبا لا إله إلا الله ما جوغان غا ندا وين غند يوننتي بي ba yeneen fal ko xut bu baraamam li taxaway wolof tama dégg yaaram dama nargaa ñu jàngul xam baraamam ma kañ ko te way ko ndaxte mu dolli may may jiwil sañ naa wiril gañ baraamam ma nit li jalaareem te sulli fi ndam ca waxar baax ya tax ngeen xam baraamam te xëcc yàlla fal xam na makaamam te xar baax yaak ca may ya xam baraamam ca wàllu yaak ca xaw si ya sex ca diwaan ca xutba yaak ña daawee teg baraamam ña xam yàlla ña xam yonen ca baawo ba tey kin jaaragul fi mu jaar baraamam te wax ji moo ko wax ba ko noon yo yóbbu ku wax ji moo ju ak baraamam te géej gi la lambe yàlla ba fekk muy géej mu tànk ci leeru xëy bu ya naan baraamam te géej gi la seytaane ki gaayam bu maaj muy taxaw faratay baraamam te géej gi la bàmbati jëndam bi xam-xam ba faf yor ali wa xali mag baramam foofee di xaari bakkan ci ay at di baale teg ak julleeg wet ak baramam ñu bokk ko fal tofal ko mu fab kun mu wamaturu yi jox ko mu jox baramam di kenn ki ñëpp xam foofee ci baatin tubaab di bañ sëriñ si di yëm ndi fekki jant tim ñépp duniya di taalif tiirey sellal baraam maam jërëjëfër Sëriñ Tuubaa noonu da la ñuy nuyoo rek. ayca nuyoo bi am na solo nuyoo bi am na solo lool lool lool lool bu ngeen gisee nag tey ñu toog ci kafe gi. ah tey nag ku woo taalibe Serigne Touba te xam ne ku tedd ki ba muy ñëw dafa indi woon Serigne ca kafe gi kon tey bu ñu toogee fii ci kafe gi wàcc nañ am déet. waaw boo toogee fii ci kafe yaakaar naa ah. wàcc nga. ndax yaakaar naa ku tedd ki moom. Mhm. ba mu jógee ci liggéeyam ba li leen di comme Serigne. ndeysaan moo tax kon bu ñu toogee fi ci kafe gi. li mhm. fi def mi ngi soog wàcc nañ te it war nañu. ndeysaan dëgg neexul ñu bëggoon a xam ah, lan moo indi laykara bi. waaw laykara yaakaar naa ba muy tuut tànk ba tey. Mhm. man dama bëggoon Cheikh Modou Kara Mbacké nuru ñu lool lool lool lool sax. Mhm. loola war laykara samay t-shirt ak sama lu rëy laykara. Mhm. suñu sama buntu bi sax buntu kër gi ko bind laykara. ñu bëggoon Cheikh Modou Kara ñun ba ñuy tuut naa ni bu ñuy toll nii bu ñu yi maa jàll yi. da leen topp. ba fu ñu yem suñu waajur du ñu wër. Mhm. ndekete topp nañ Baye Fall yi moo ñu dal en plus sam sama waajur bu góor Baye Matar Gueye di ko ñaanal yàlla na fi yàgg lool te wér moom seex la. Mhm. ndax seex mhm. mu yàgg fi loolu te moom itam dana ànd ak Cheikh Mourou Kara Mbacke Nourine. moom nañ fu ba ci waajur Cheikh Mourou Kara Mbacke mu Seydina Ousmane. xam naa loolu moo ñu topp moo ñu bàyyil ba léegi moo tax mu demee nii mu demee nii. waaw mhm. ah, ñu bëggoon a xam laay fan la juddoo ak kañ la commencé dugg ci cant yi. man maa ngi juddoo Pire Pire bu rëy dëkk Ndoye Bane. Mhm. waaw kër Cheikh moom mu Pire moom tam sëñ Tuubaa seexal. Mhm. moom suñu maam la moo tax bokk ci ñaari parti waa kër Cheikh Moussa Mbaye kër Cheikh euh, laay li ko dugg ci cant gi pexeb sunu borom la. ak ndogalu sunu boroom du man bëggoon naa bëgg ko trop trop trop waaye itam sunu boroom tamit jàpp naa ni moo ci teg loxo moo tax mu demee ni mu demee mm-hmm. waaw. macha allah suñu borom moo ci teg loxo moo tax mu demee ni mu demee di leen fàttale ba tey rek yéen a ngi ànd ak waa DS Prod ci seen émission kaay ñu toog jataay bi nag bu ñu ko yoree bu ñu ko toogee nee naa la du ñu yor ay peel di gas ñun pokaleen la ñuy gasee lu mu gën a xóot gënal ñu dëgg neexul. Hmm? noonu gën sax. maa la wax lu mel noonu. Euh, laay dafa jaar ci daara yi wala jaarul ci daara. Euh, jaar ma ci benn daara mais def naa franco arabe. Mhm. laa jàng passement moom ma jàngal fi unité 21 même fi jóge après ci daara Serigne tubaay laa motali ko. macha mel ni saxaatu daara yi mhm. bi suñu jëriñ jëlee ko muy jëriñ baara. Mhm. moo toog sama wet di sama rakk ak ci kuréelu Nouré moom borom daar Nouré moom Seydina Ousmane fa la ñu motali ko la bari jaariñ ci daara. fa la ñu Mm-hmm. lan moo la dugal ci way cant yi. waala ci way cant gi bëgg damaa bëgg way man. damaa bëgg way bëgg way yi sikar. Mm-hmm. mu ko bëgg lool man damay tos di wayantu. Mm-hmm. nekk naa di way di way ba saret dal sama kaw ma dem. daan nekk ci duusi di way. ci doon sangu di sangu nekk ci duusi di ba sama papa naan man yow xanaa kuy way ba nekk ci duusi. parce que mu ko bëgg way way way yëpp way nag sikar la. Mm-hmm. génn ma si waaw génn ma sikar si mm-hmm. euh, ñu bëggoon a xam bi nga commencé way ak léegi ci ñaati at la toll yàgg na parce que yaakaar na ñu fi dégg nii yëpp mm-hmm. mën naa ne maa leen dëkk sikar ñu fi dégg nii yëpp maa leen dëkk sikar maanaam suñu borom doo ko tuddagul woon rek léegi la koy soog a tudd suñu borom doo ko tuddagul woon léegi la koy soog a tudd te incha allah li ci kanam réewu di bët. Mhm. am na yu bare bare bare ñu war a def am nañ ay événement ñu war a def ci màggal gi ñu ngi dara. Mhm. pour def ko mais daal. Mhm. yàlla baax na daal. ndeysaan euh, tey boo dee fàttaliku ci way yi nga njëkk a way ban la. waaw way ma njëkk a way way ma njëkk benn way la bu naan boobu lamp jaal ma ko daan way bu naan. Bésmélaa ni rahmani rahimi alhamdulillahi buur bekk moom ni rahmani rahimi alhamdulillahi buur bekk moom ni rahmani rahimi alhamdulillahi li laayi buur beeka moom bismillah waawaaw rahmani rahim alhamdu lillaayi buur beeka moom bismillah ni rahmani rahim alhamdu lillaayi buur bekk moom bismillah waaw rahmani rahim bismillah ni rahmani rahim bismillah الرحمن الرحيم الحمد لله بور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد lillahi bur bekama waaw rahmani rahim alhamdulillah lillahi buur bee ka moom alhamdu lillahi buur naa foofu la ñu njëkkee ci way macha allah boobu maa ngi ko boobu daayira la woon. Mhm. fii kër ñoom Amène Mbodj mhm. boobu yaakaar naa ay tout tànk la ñu nekk daayira fondement daayira Sëriñ Tuubaa. Mhm. lool mooy sax a bii tey. ndeysaan ci sa ay wax yaa may wax ne Pire nga juddoo indi Ndakaaru. waa Ndakaaru sama fi nekk. sama moo fi nekk sama yaa ngi Pire. moo ma indi yaakaar naa ba may am 6 ans laa fi ñëw xaw ma ba léegi ma dugg sama 32 ans kon xam nga yàgg na. sama papa 82 la kër parcelle. loolu yàgg na. Euh, ñu gis ni que jamono yi ñu weesu jafe woon na loolu cant yi di am wala yenn programme yi mu tombe woon ak jamono Covid bi naka ngeen ko doon dundee. waaye Covid bi waaw parce que man damay liggéey. Mhm. man nekk moo yow ma ci sa damay sama waar di def service livraison. di ko di liggéey yomb ma ci moo tax à chaque fois nit waroo nekk ci benn affaire surtout ñun ñuy ñi nga xam ne ñu koy waxee jeune yi ñuy wax nii. Mhm. war ñu yem ci si kese kese dañu koy yor boole métier wala am ci lu ñu def parce que lu mel ni Covid bi Covid bi yaakaar naa war a mën a jàngat ñu bari war nañu fi mën a jël jàngat. Mhm. parce que ñu bari dafa métti woon ci ñoom trop trop trop Mm-hmm. parce que cant yi amul woon fa lañ daan foree dara. ah mariage amul woon fa lañ daan amee dara. Mm-hmm. ak takkusaan yi ak guddi àjjuma yeneen yeneen fa lañ daan amee dara. loolu Covid bi yàq ko moo tax lu bari war nañ cee jàngat ndax Covid bi. waaw. Euh, waxtu bi ñu tollu tembe lan moo nekk sa projet yoo xam ne war nga koo dëgmal. waaw projet yi ñu dëgmal nii euh, ci màggal gi incha ñu waaj dara. pour sante ko Serigne Touba bu baax a baax ci magal gi di wax soppe yi ak fans yi am di jàmbe yi xarit yi nañ ko xaar incha allah lu lu bees tàkk lu garaaw incha allah ñu ngi koy wàcc ci magal bu neexee yàlla fii si terrain bi incha bu neexee yàlla mhm. waaw. pourquoi pas lay euh, visé wul dem grand théâtre mu préféré defee ko fii ci terrain bi. waaw parce que dafay nekk première édition moo tax. Mhm. moo tax ñu def ñu ko bëgg def ko fii bëggalee ko soppe yi mhm. après yenn at yu ñëw. Mm-hmm. di ko grand théâtre defee ko Sorano wala feneen feneen. Mm-hmm. mu loolu la wolof fi di wax bay ci say. weewu tànk ndeysaan dëgg ah. neexul. mos nga am jafe-jafe dugg ci benn benn tànt rek am fa jafe-jafe wala say waajur nga am ak ñoom jafe-jafe boo xam ne bëgguñu ci li ngay yëngu wala buñ sañoon door yëngu ci lii. waa mur dama cee juddu. Mm-hmm. mais bi may soog di ànd ak bay Fall yi sama papa daf ma ko wan tere. parce que amaana malakaan Baye Fall yi. yenn ñi. ma melokaan yenn Baay Faal c'est important moo tax moo ko daan tere mm-hmm. mais ba mu demee ba du du ba xool xool ci biir xam ne ah kii kat la muy def lu ko gëm koo gëm la mm-hmm. dama cee bàyyi ànd ci ak man mm-hmm. waaw xam nga Baay Faal dafa am baay foo am ci ñi ma ko sañ wax. ak baay riirandoo. ak baay riirandoo yi. <laughs> waaw baax na baax na léeg-léeg nga gis kenn mu ne la man baay daaru laa. ah baay daaru nekkul ala lii laa lii laa da koy jëf. da koy jëfee wane ko. maanaam soxna si. murit dëgg. sàkkatuma la ak waxtuma la ak Baye Fall waroo a def rek ñu ne est-ce que <coughs> jëf dara loo xam te ni. Mm-hmm. koo gis. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, sa papa yenn saa yi bu la mësaan gis euh, ngay ànd ak ñenn ñi daawu ko neex mais bés bi nga toogee njëkk a jàkkaarloog moom way lan la def ci moom ak lan la def ci yow. waa sam papa jour mooy njëkk a jàkkaarloog moom di way. bi mu jugee Màkka la. mu jugee Màkka ma yooyu sànni yàllaahi bil munaajaati yeggalu ma ko damaa jooy. yëkkatil ma dégg ma xool xam di nga jooy tey. sànni yàllaahi munaajaati waa badan ax naa yediyaan haati dalaala yaaw lama wal awliyaayi man laa yazaal huwati wal awliyaai qasidati faqad qasaahidal kiraami wali taquudu abadan xayral maraam xadiyati muxjilati kulla malik kaana munaasiha wal axsaahul malik mawaata waajua nasaarallaahu liya bila ilaha illa allaahu maalik ma ca Tuuba maalik ma ca njaw siin ku lay riire daf ma laajul géy maalikum sang alaaji Matar géy sa maama njëkk a toj daaray mbaakol ba tax ñuy bay ngangaal géy maalik ku lay riire daf ma laajul géy sang sa maama njëkk seqi fi siw Cheikh Mourou Ba baax ku lay riire daf ma laajul géy maaleykum sang. macha allah loolu am na solo. Euh, dañ lay may mouchoir moom Cheikh Mourou Baye maamam Cheikh Mourou Baye maamam. <laughs> waxuma lool de ma dañ lay may mouchoir wal dañu bàyyi mu sedd. non nañ dem ba ci nañ bàyyi mu sedd naa <laughs> koy kii da nga koy retenir dama koy téye koy téye. waaw <laughs> ay ayca am na solo macha allah ñu ci ziar bu baax a baax suñu yaay taalibi Serigne Touba bi bëgg lool lool lool Serigne Fallou muy suñu maman Fatou Diop jëli ah, di ko kontaane bu baax a baax di ko ci ziar ah, ci waxtaan bi yaay Bouba Diop ah, yaay Koso yaay Idrissa sama xarit maa ngi koy kontaane bu baax a baax sama ompaañ sama yaay waxtu bi bu tollee fii. Euh, ñu gis ni yow am nga ay fans yu baree bari rax na ay tiijaan rax na ay xaadir rax na ay leneen ak leneen ak leneen ndax yow say way da nga koy jagleel rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si yoonu murit gi wala da laal ñëpp. waaw am na fu may toll damay laaj ñëpp parce que su ma demee foo xamante ni. Mhm. parce que murit. Mhm. tiijaan xaadir laan ba ci chrétien sax ñuy bëgg. dëgg la. moo tax am na fu ñuy toll foog ñu leen bëgg bëggal. parce que bëggalante la daal. Mhm. kon du leen ci génnee. Mhm. foog ñu leen ci bëggal. Mhm. waaw. dëgg la sa xaritu Tidiane yi léeg-léeg sa programme nooy faral di def ak ñoom. indal manaay la la loolu dëgg la min masaaya oo indal manaaya taxmin min masaya ma way manaay la loolu dëgg la min masaya wa indal manaay la sëpp sëñ Babacar Si loolu dëgg la xalifa way alhamdulillahi haza se xuraba wo xayral wujudi la في أخلاه مولاه واو مسايا مامي منايلا من من مسايا خليفة وي الحمد لله عزا شيخ رباه خير الوجود له في أخلاه مولاه إن المنايلة Serigne Babacar Sy ay ca jërë ngeen jëf mu ngi noonu nee naa la xol sedd na te am naa yaakaar ni fi ngeen toog li ñuy yëg yéen a ngi koy yëg yéen ñu ñuy seetaan ba tax dañ leen di jaajëfal bu baax a baax di leen kontaane fu ñu mënti toll teyit it euh, di leen wax ne léeg-léeg euh, lay nga dem ci benn koñ di fa cant ñëpp bokk ñu yam dina am ñoo xam ne dinañ nangu dinam ñoo xamante ne dinañ bañ loolu su amee naka ngeen koy dundee waaw des fois bu ñuy dem ci cant loolu wax dëgg yàlla dalaguma. Mhm. dalaguma peut être tam ñoom ñuy def cant gi dañuy waxtaan ak waa koñ bi. Mhm. ba pare soog ñoo woo. ci ànd ak waa mu rafet lool waxtaan ci lu yàgg sax. Mhm. bu ko defee ko ci nekk jox sa xalaat ñu ànd ko def ko mu rafet lool mais loolu daal dalaguma man. ndeysaan ba pare sunu sang bi. borom daaru nooree nii. daan wax naan lépp lu ñu dugg rek. nañ ci dëgg ak sunu waajur yi. Mhm. lépp lu ñu def rek nañ ci ànd ak sunu waajur yi. ñëwagoo sax ci moom dinaa ñëw ci moom léegi. ñëwal ci ñëwal ci ñëwal ci borom daaru ndax nag euh, bu cere jeexul ñeex jeexul seppali du wees sifaat du wees kon euh, yow damaa bëgg rek nga ñëw ci borom daaru. tey ñu nag yow ba fajar ku yàkkamti dem tëddi. bàyyi ñu dañuy waxtaan. noonu la ko teree neex. Mhm. yéen ko teree neex. maam Cerno ma lay tagg ngir njukkeel la man ak ma jiite diwaan Sotal la ak kuréelu nooray ni munuñu fay mu ko Mbàkke baal la ndax lu fi waay di jëriñoo sa yëf la borom daaru. daanukat yi na ngeen ma dimbali rek bu dee am na koy daanu fii na dem ba nële. ñun dunu joxe bopp roc ci làmmiñ moom Cerno Ousmane mel nañ ci yow ni laaw bay akub semiñ yaa ngi doon sama tum xanc nga ni dagge nu ne setu pétrole taal mi tàkke nu ne maam Cerno Ousmane boo ñu dëgëralee sunuy tànk ba mu dëgër maam Cerno borom daaru dinañ la liggéeyal lu jër kër kër yi maam Cerno Ousmane xale yi dëkk Sénégal ñëpp a ngi maase jëm ci ci yow maam Cerno noora yi ni diwtum dimbal mbimbi réere yi ne leen waaw rek ci ñoom babbu nu sànku mën nga ko yaa tax ba kenn du sànk moom Cerno Nooreeyni na Cerno yaay sunu baabu laay sukuri sunu baabu laay sukuri yow lañ fa wala mam Cerno yaay sunu baabu sukoor yow lañ fa wala am Cerno yaay sunu baay borom daaru sukoore yow lañ fa wala yaay sunu baay Ablaay sukoor yow lañ fa wala ñu koy bàqee sunu sang bi maam Cerno Ousmane macha allah euh, euh, tey jii su fekkente ne dafa am loo ñuy wax ci maam Cerno Ousmane Mbacke Noreyni tolluwaay lan la waaw yaakaar naa li ma dal yaakaar naa moo dal jeunesse bi yëpp. Mhm. senegal Sénégal bi bëgg borom daaru. ndeysaan. Euh, bëgg ko lool amuñ ci moom sago ñun ñëpp nag. jeunesse senegal bi yëpp daaru sama baay daaru bi. lay ba jaan taalibe euh, maam Cheikh Kara bi moom tamit sama baay daaru bi. El Kara Guèye maa ngi leen ci ziar bu baax a baax. waaw mhm. amuñ ci moom sago. Mhm. ndax borom daaru discours am ak yërmandeem ci yërmandeem ca jaam ñi yërmandeem ca tuutànk yi. borom daara boo ko moom foogoon na ni ndaw lu jug rek dën ma Serigne Touba moo la war a yor moo la war a teral. ndeysaan. maam Thierno Nourine. Mhm. moom ndaw bu jug dën ma Serigne Touba. Mhm. moo la war a yor moo la war a teral. Mhm. ndax boo seetee discours am yëpp jëm leen dellu leen ci kër yi. toppatoo leen waajur yi. dem leen liggéey defar seen avenir. boo déggee ci benn vidéo mu ngi naan dafa bëgg suñu réussite. da ko bëgg loolu. moo tax mu demee ni mu demee nii. Mm-hmm. magam ji Cheikh Amadou Karam Mbacke noonu ni bëgg ko lool am fu mu ko teg. Mm-hmm. maam Thierno mu yàgg fi ñun koy ñaan mu yàgg fi lool ndax mu yàgg fi la. Mm-hmm. muy njëriñu jeunesse bi muy njëriñu tam waajur yi ndax yaakaar naa ni. bu ñu nekkee bu ñu nekkee ci en rek. waajur dañu nekk si jàmba dëgg na waaw mais jataay bi nag fi mu ne nii dafa war a saf sàpp ak café murid yi dañoo war a naan. waaw xel xel café gi. baara murid yi dañoo war a naan café. baara bi saf sàpp ak café. xel café gi xel café gi xel café gi ah. tey jii balaa ñuy dugg nag ci li nga xamante ni moom mooy euh, mm, mbir mi li ko sabab lu ci ëpp li li li gën a dëgëral waxtaan bi tey. delloo siwaat ndaw yi ci la bokk comme li nga mujjee wax mais balaa boobu. Euh, ndax am na ñoo xamante ni dañuy jóg rien que pour di soutenir jeunes yi nga xamante ni dañuy def ay euh, way cant comme ni ñuy récupérer yenn waykatu mbalax yi di leen yóbbu ci label yi yéen ndax am ngeen label bu leen di xëccee noonu di leen di leen di leen génneel ay son. déedéet. pour euh, question ba mu solo nga mhm. euh, parce que Sénégal. Mhm. dëkku diine la. Mhm. dëkku lislaam la. label bi yaakaar naa ci dëkk ci këru diine la war a njëkkee. dëgg la. te li ñuy wax bu dee dëkk musulman bi ñuy wax nii. kon label boobu ci këru diine la war a njëkkee. ñu rikkatee jeune jeune ñi nga xam ñun ñoom dañuy yëngu ci zikr la ak. ci wàllum cant yi cant geeg yooyu. amul kenn def ñu ko. ci karkat bu ci jug rek sa propre sa waa koñ ñoo lay jàppale. nga def say moyenne bopp. Mhm. bañ dëgg la fenn fi wala yow ngay dox say jóg bañ dëgg la fenn wala suñu borom jàppale ba nga dé mhm. yegg fi nga war a yegg mais amul kenn ku ñëw du jàppale sakarkat yi fi déedéet amul. ñu mhm. ñu ñëwee def ay label ko defal ci sakarkat yi. Euh, kat ci jàngkat mu di jëg ci dara xaalis rek laaj nag ñëpp. Uh-huh. noonu. merci euh, Kara fii mooy DS te li leen di naqari yëpp fii lañ koy jooyee te jant bu ngeen fi jógee jàpp naa ni seen ajo dina fajo mooy dañuy sàkku ñaan ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor label de production yi léeg-léeg dañuy fekk euh, woykatu mbalax yi rek fàtte ni am na ñeneen ñu nekk ci ginnaaw ñii dukkat bi moo leen gënal ñii tëbum sabar mi moo leen gënal waaye dañuy tàllal suñu ay loxo à travers DS Pro di wax yéen ñu yore label yi ngeen fexe xëcc ñii di jeune talent yi am naa yaakaar ni bu ñu fi jógee label dina la woo ñëw produire la yow ak sa sa groupe ah ñu ngi ñaan ñëpp yow tamit nga ñaan. waaw mais label yi loolu la ñu war a def. Mhm. ñëw jàppale ñi nga xam dañuy yëngu ci zikur laa. Mhm. tudd yàlla ji. te mhm. bañ a yem ko yemale ko ci saa nañ ko ŋareel rek. ñu jàppale parce que léegi jeunes yi. léegi ñu ci ëpp sax dundatuñu saa si léegi ñu ñu jàppale. du woon seen label yi. Hmm? ndeysaan di ci woo ku mel ni Matar Diop suba teel waaw borom hmm? suba teel borom suba teel hmm. jàppale ñu doomu yaay Magor sama xarit mbokkum yaay Sidika waaw dañoo war a ñëw jàpp ci magoor Magor yow xam naa ni est-ce ma la booleeg Magor sax waaw Magor Magor xam naa ni dig ñu seetaan bëgg naa ngeen jàpp yéen waa suba teel ci loxolaay laay karaam ak The ngeen fexe mu def ay produits ñëw dugg biir suba teel ci lañ bokk Hmm? dëgg neexul ay ca kon léegi nag li li sabab tey daje bi fii mooy gis nañ ni xale yi fowatuñu léegi waaw parce que xale yi fowatuñu parce que xale yi fu ñu tombe la mhm. dañoo tomb tombe jamono internet moo ñu sonal trop la jël ñu mhm. witti sax dañoo tombe mhm. xale yi boo seree ñun bu njëkk dañ doon daaj saa moori moori ba Mm. ay egat tant mm-hmm. tante mm-hmm. wal ay yeneen ay bootante ay bëre mm-hmm. mais xale yi footuñ loolu xale yi xam nañu foo léegi internet yi rek internet xoolal bu xoolal ma la léegi xale bu ci toll xale bu xale bu ci toll ne yaa dañ ko njëkk a jëndal tablette tablette dëgg la ah, tablette la ko njëkk a jëndal pour mu ci connecté dugg YouTube moo tax mu demee mu demee moo mm-hmm. tax xale yi foowatuñ euh, euh, ñu gis ni jamono ji internet bi xaw naa yëngu ak xale yi mm-hmm. vidéo la motif yi di génn ay leneen ak leneen ak leneen ak leneen tey soo amoon loo ñuy wax ci loolu lan lay doon waaw vidéo la motif yi xale yi léegi dañoo mag seen waajur yi <laughs> ëpp leen xel toogal waaye ñoo mag seen waajur yi uh-huh. ëpp leen xel bu ñuy génn li ma la wax rek dañoo tomba jamono internet téléphone yeeg whatsapp yi mun nañ cee def lu nekk rendez-vous yëpp fa lañ koy jëlee fa lañ koy mhm. joxante mhm. bu ñuy génn la ñuy sol la ñuy sol sax mhm. ak seen yaay bi bu sax seen le motif wala bu leen fekkee foofu ak bu ñuy génn la sol bu doon benn moo tax seen waajur lu bu ñu gisee xale ñu dañuy am gàcce dañuy ñu ngi yar ñu ngi yar baax a baax mënuñu boole daw dépense daw dépense ak bëgg a topp ci xale yi. est ni daw bu ëpp bi tamit euh, def na benn am na benn impact bu mu am ci loolu gisoo loolu. ni daw bu ëpp bi ndax léeg-léeg nga daw di wuti dara fa romb ko. waa dëgg la loolu am na ci impact bu baax a baax a baax a baax. Mhm. mais fi fi jamono toll ak jamono ji mu méttee. Mhm. moo tax mu demee noonu mu ëpp. Mhm. bu bu ñu amoon lu leen gën seen famille. mais dëkk bee métti. mu demee ni mu demee. dëgg la tey soo amee conseil boo leen di jox lan nga leen day wax. waaw conseil mooy may jox xale yi. lu ma leen jox mooy lenn la rek. Mhm. nañ dem ba tënku ci daayira yi. Mhm. waaw parce que yaakaar naa daayira bu ci dugg. Mhm. muy bu tijaan muy bu xaadar. muy bu laayeen bu murit. yëpp ñoo ci yem buñ lay teg na teg ci yoon siraatal mustaqiim. dëgg la. buñ tënkoo ci daara yu bari nañ ko jom a def. wala yu bari nañ ci jom a dem. man tey jii soxna si musuma dugg bu waat. Hmm? barke Seexul Xadim. ndeysaan musuma dugg bu waat. ñii mën na ma seetaan. xaw ma ko mais fii moom gis naa fi ay kanamu ñu bàyyi boîte. waaw waaw mënut a ñàkk fii yow da bàyyi boîte waxal rek maa ngi way wax da ngaa bàyyi boîte. Eh, wuy ma maa ngi way wax jàpp ci rek. lan moo tax mosoo dem boîte. neexuma cant gi moo neex man cant la laay ram. Mm-hmm. wuy wuy ko ca dem ca dumooyu bala. yow ku la xool xam ne daan nga dem boîte ma ko micro. Amet mais dañ ko daan dem mais léegi soppeeku nañ. parce que maam bi moo ñu yar teete ñu. Njaga daan nga dem. waaw daan nañ dem moom. ndeysaan. waaw mais léegi moom yooyu yëpp bàyyi nañ ko te aju nañ ko tamit. Mm-hmm. depuis bu ñu jébaloo si maam bi ba léegi. Mm-hmm. du neex la ñuy def daal. Mm-hmm. waaw di tar di topp ci ndigal yi daal. ndeysaan waaw. joxal ma ko moom moom xam naa ne bàyyeegul moom. wuy ma bàyyeegoo. ñun demuñu ne mosuñu dem bàyyi. bàyyeegoo. musuñoo dem ba léegi ñoo ci xiin yi hmm. tamit ci toog yi nga bokk. Hmm. kon baax na kon noonu la yow nag mos ngaa dem. kon man ah, depuis quatre ans yi nii tegu ma ko sama tànk de. bu dëgg fa yàlla non gëj naa dem trop ba mu duggee daare ba léegi baay naa yooyu kii Serigne Bamba waaw ñun ñun dem de yooyu moom bàyyi nañ ko bu yàgg. yow balaa ñuy bouger di ñu kuréelal tuuti di ñu kuréelal. non xam naa li ma la di ñu kuréelal parce que man daam boo xam ne daf may daaneel jaali batul maraaxib waaw boobu daf may daaneel hmm? man mokkal naa ko moom bu ñu paree kon dinañu jaali batul yow moom yow est-ce que musoo dem kër ñoom mbay si njaay nga dëkk fa parce que li ma gis nga koy bàkk nii ku musul jaar foofu du ko man moom non yàlla dem na sama moom mosum sama turandoo moom tëgg tabalaw la woon. Hmm, waaw bettuma laal na ca. dañ ko seexaloon si kër xaadari sama turandoo moom da doon tëgg tabala. ndeysaan sama am na sama benn grand frère dama ko daan tooyee naan ma lii da ko doon sa turandoo. Hmm. dëgg la dëgg la. loolu moo tax xam nga rek. lu mënut hmm. a ñàkk la moo tax. dañoo judd fekk suñu mag tamit di xiin mhm. moo tax rek si tànk yooyu lañ jaar rek nekk ay bàkkat baa ma fay lépp lu ñu mën si xiin moom la parce mhm. que alxuraan karim moo tax rek mhm. dañ koy delloo njëkkal boobu noonu di ñaan yàlla yàggal taxawaayam noonu la demee dëgg la joxal ma ko moom mi góor gi ci ruq bi <laughs> man doon naa dem baat <laughs> waaye wuy ma reetaanu dem katu boîte nga ma reetaan nii waaye dañuy sant yàlla macha allah sant borom daaru ndax lu ñu mel tey moom la ndax yàlla def ni biñ ñu duggee kër Noreyni ba léegi. Mhm. macha allah soppi nañu. Mhm. alhamdulilah rabbil alamin te ñaan nañu yàlla euh, yàlla gën ñu dolli. Mhm. ndax bi ñu duggee kër Noreyni ba léegi gis nañ njëriñ. di ñaan yàlla borom daaru Noreyni yàlla yàlla bàyyi ko fi. ba li muy mbëbët ci ñun daal mu gis ko ndax soppi nañu daal. sant yàlla bu baax. yàlla ko fi yàlla bàyyi. kii du ma kii du ma ko laajagul dama koy réserver parce que comme moom moo moom moo mën jaali batul maraaxib may ma tuuti maa ngi ñëw. yow bàyyi sa yi ngay def baara baara daajkat la de kuréel kat la de. may ma tuuti ñu eggale suñu waxtaan bi moom mooy jiite kuréel xasida bi. xam naa na mën na la daajal léegi. Eh, yow kuy ku yàgg toog ci kuréel boo ko gisee da koy xam. maa la ko wax <laughs> eh, toogaayu kuréel sax la toog nii fim ne nii. mi ngi toog mais jàpp na ne ci kuréel gi la toog nii. waaw. Eh, dañoo nekkoon ci fo bi mu mel ni bu njëkk fo yi amoon daan na yee bopp xale yi. Mhm. yow ban moo la ci gënoon neex. man day tante laa doon def bii egaat mm-hmm. saamoori mori ba mm-hmm. ak yi ca des yeneen yi ca des yi ca des mm. waaw léegi euh, ban ban ban nga ñu nar a ni moom nga fas yéenee foow ak ñun foo ko xale yi ngir xale yi man delluwaat di foo fowum gone ah ana kii baral tañ si a ana baral tañ si bi ah, ah, ah, kon loo nar a def tante tante ah da ngay tànte waa d' accord léegi ni dina sampal camp yi après. sampal camp yi. camp yi est ce que duñ ko samp nii. waaw ba tey. waaw bu ko defee décor bi mën a génn na ko samp fii. léegi abal ma ma waxtaan ak euh, sama xarit bi acca euh, daan nga dem boîte fi ma fi ma jaar ñëpp laa lay jaar ba pare daan nga dem boîte. non ñun nag suñu borom dafa def. Euh, mi ngi ci ah. daan nga dem boîte. suñu borom dafa def nag ne ñun mosuñoo dem boîte. Mm. waaw mais bañ nekkee xale. Mm-hmm. comme que man xar yàlla laa juddoo wax dëgg yàlla. Mm-hmm. foo nañu ay foo yu bëri. mais mm-hmm. Bougane moom wax dëgg yàlla xamuñu ko ndax bañ ñu ñëw fi en 2005 dañoo fekk suñu mag ji di Abdallah Kara. ñu fekk ko si daara ji. ñu ñëw nag ànd ak moom nekk si daara ji. parce que suñu borom deful muy def ba léegi waaye ay boîte ak non non ñun moom ñu si ñu cee kon laay sa mag la. sama mag la ñoo bokk baay ñoo bokk benn baay. Matar Koura Gueye mooy moo moo moo ko jur. moom mhm. Tànday Mbay moo ko jur mooy waajur bu jigéen. Mhm. man Ndayaram Mbay mooy sama waajur bu bu jigéen. macha allah ah nee nañ ma yow ci kuréel yi ngay toog. dalay nax nag dalay maam ndax dalay nax moom. Mhm. waaw dalay nax rek mais mais man dafa am boo xamante ne daf may daaneel. wax dëgg yàlla muy jaalibatul maraaxib te xam naa ni may daanelee ndeysaan bëri na àdduna ñoo xam ne jaalibatul moo leen di daaneel. wax dëgg yàlla moom ma bëgg rek nga yëkkatul ñu tuuti rek. man dalay nax wallaay dalay nax. mais xam naa ni man am na loo ci man yëkkatul ñu ci tuuti rek yàlla nit day wax lu mu lu mu lu mu mën day wax lu mu lu muy def wax dëgg yàlla miinu ko. te yëru ma ko waaw miinu ko nag wax dëgg yàlla moom. déedéet miinu ma ko te it mënoo ci benn baat boo xam ne war nga ko cee wax. dama koy durus moom waaye taxaw fii di naan ko di ko di ko jàng wallaahi mënu moom damay wax li ma mën. Euh. dama koy dama koy dama koy durus dama koy jàng. léegi lan moo tax mënoo ko def fii. du ma jàngkatu jàngkatu kuréel laa du ma jàngkatu rajas Abdallah mii mooy jàngkatu rajas ndax dafa am jàngkatu kuréel am jàngkatu rajas waaw ah, soo ma fekkee nag ci fa ma nekk ma ma ma defal la ko. waaye kon yow dama lay beral sa yëfi bopp. Ah, ñëw seet si waaw bu ëllëgee incha allah soo ma seetsee. fa ma war a seetsee. waaw ñu ñu defal la ko man Abdallah turuba moo ngi nii man dama am sama turub fële fële kër gële waaw. d'accord yow kon dina ñëw nga durusal ñu dina ñëw nga jaali batul maraaxibal ñu ndax wax dëgg yàlla bokk na ci lu ñu amul amul benn problème incha allah boo ko jàppee rek boo ñëwee fële sa daara ñëw ñu defal la ko. incha allah incha allah rabi incha allah jërëjëf si amul benn problème. Euh, léegi kon dañuy dem defi tante bu ñu paree jugee ci tante bi nag nga gërëm ñi nga war a gërëm. sant ñi nga war a sant door ñi nga war a dóor ñu daal di ambiance tàggoo dem ñibbi ba beneen yoon. waaw yaa ko tere neex. ayca xaaral ñu. gaay tàmbali ñoo mu neex de. cëm. Mati. ca tante bala am sama sama tijaan bu ñëw eh, jël ngeen lii jëlal lii. Mati. soxna si sama sama sama ah, taalibe seex bu ñaawul bee nii. moom mooy arbitre bi suñu taalibe seex bi waaw. waaw. musique. ca tante bala. musique ci bamba ji. ay. ah man damay gagné. oh. non ay affaire yi ay triande am na eh, ci nañ waxal waay ah waxal benn des na beneen ñett ba andi ma la andi gars de nekk tante rek lañ daan def dégg naa Tawfekh Mbaye daa xamoon mba waa Tawfekh daa xamoon ñu koy siyaar suñu magum taalibe la ndeysaan Tawfekh daa xamoon da doon football xam daam seen di dawal vélo daanu <laughs> Tawfekh nongo daara la waa xel kom la <laughs> waaw waaw te mbaay neewoon na ma dugal sama yëf la Oh. oh bii da koy perte ñaw. eh, eh, eh, eh waay lii yo. <laughs> waaw nii la nii la nii lay demee. eh du nii. ah. gis nga. bàyyi naa. <laughs> bul bàyyi. <laughs> kii te de. déedéet ah. des na benn dañuy fubal nay leer. ayca. bii yaa ngi sax Baye laay dafa bëgg lu yomb laay bu duggoon ci terrain bi lay xam ni dangaa xam waaye moom oh non tey day perte tey damay gagné. waaw si. mais yooyu ah xam nga lii man naa. bàyyi naa <laughs> damaa bàyyi indi damaa bàyyi indi sama téeméer yow damaa bàyyi. <laughs> yaa ngi taw chat tët tët tët tët tët. gis nga li ñu daan fowee. yéen yéen da ngeen doon supporter kon. ah dañoo supporter dañ ko <laughs> loo gis nag nekkate yoo nag sodda cee baax man na damaa wéet sama ñaari caméraman yi gisoo nii. ni wuñ ma supporter wuñ laa bàyyi ci biir. waa mais wuy ma. chat mhm. tët man xamatuma sax lan laay wax. ah mais gis nga te football sax lañ ko waaw bien sûr mënoon fubal trop. ah Mbaye daa fubal xam de tawféex fii la xam ci terrain Pirlo la ma doon woowee Pirlo ndax mën a fubal. luñ la daan woowee nga ne. Pirlo Pirlo. Pirlo. waaw ah, ndax mën a fubal numéro 10. ndeysaan. dëgg la kon mm. xale yi bu ñu gisee lii dinañ delluwaat ci fo mi di fo fow gone ndax yii yëpp ci la bokk. yëpp ci la bokk lu gis lu nekk rek uh, calcul la cee baax. Mm. te uh, tante mel na ni bopp moo koy def calcul la. parce que gis nañ bal bu jaaree na la yow di nga fexe ba indiwaat ko. waaw donc xale yi nañ delluwaat di fo fowum gone. waaw nañ delluwaat di fo fowum gone. Mm-hmm. di fo fo te fo a fo fow yeneen. fo uh, internet fo fo internet sa waajur boo neex. Mm-hmm. am na ñoom dèjà yooyu mooy rey seen waajur parce que sa doom na def loo xam te ni. yow boo gisee day jàpp sa xol ba da lay mujjee rey. loolu mën na xale yi dañ daay yooyu te tañ dellu ci daayira yi. waajur surtout waajur am na waajur tamit yu sàggan. seen doom mi lu leen indil. duñ leen laaj fi mu ko jëlee. lekk. Mhm. moo tax seen doom di leen indiwaat leen loolu tamit buñ ko lekkee jafe-jafe rek leen di dundee. Mhm. sa bu la ñuy indil wala bu sol. wala nga xool comportement ne ko lii lan la lan moo tax nekk nii. Mhm. donc dañ koy yare doom. loolu am na solo. am na waajuram taluñu dara. Mhm. du jënd sax seen doom euh, balaa ñuy dem ci ambiance bi ndax euh, kaay toog bi émission bi dañ koy tëjee ambiance bu saf saap. waaw lu ambiance bi neex nag doyaluñ ci. Mhm. gars yi ñëw ñu war a dukkat dukkat. tamit da ciy baax. ah. xawal yàggaay yooyu noonu ñu daal di dukkat dëgg neexul. dëgg bii nag lépp loo fi yëkkatiwaat nag na tegu ci ambiance. Ah, yaa gën a xam waaw du dëgg. léegi nag dañ lay bàyyi rek nga daal di. Ah, doon euh, am di jàmm yi nga sant leen gërëm leen. waa bu weesoo loolu dañuy sant sunu waajur bu góor. Baye Matar Gueye du nuyu tam sunu waajur bu jigéen. ajaratu Ndeye Mbaye ak sama. ñaari yaay nekk ci biir ma si biir kër gi soxna Xarija Njaay ak yaay Aram Mbay di santam borom kër gi Pape Lassana Sani sunu papa moo nu yar mm-hmm. borom këram ak ak ay soxnaam xajatu jeeju ak alende ak Ablaye Sané mi nga xam ni fi mooy mooy kilifa kër gi. di leen siyaar baax a baax di siyaar sunu waa dëkk waa Pire mm-hmm. di leen bëgg di nuyu waa kër Cheikh Moussa Mbaye nuyu waa kër Cheikh Moussa Mbaye bu ñu nuyee Baye Assane Mbaye rek yaakaar naa ni nuyu nañ ko ci euh, ñëpp ak sama ndijaayu yaay muy Baye Tafa Mbaye di nuyu xalifa Cheikh Modou Ba Gueye Papa Tafa Gueye yàlla na fi yàgg lool te wér ak Baye Mbacke xam ne moom ak kër Cheikh Modou Ba di ko ñaanal mu yàgg fi lool lool te ànd baax a baax di nuy sama waa kër Pape Abdoulaye euh, di nuyu mu nuyoo ma ma Moustapha rek ak Matar nuyu naa ñëpp rek di leen bëggee du nuyu sama jëriñ ci kër Serigne Touba ñaari jëriñ laa am waaye du nuyu sama jëriñ Omar Thiam ñoo xam moom la bàkkal di liggéeyal Serigne tubaa di ko liggéeyal Seydina Ousmane Mbacké Noreyni di ko liggéeyal borom Daaru Noreyni di ko nuyu baax a baax ak waa kuréel Noreyni gépp du nuyu sama staff bi mu am ne am li Moustapha Faye euh, Fallou ak Nabi Ndiaga Seexuna ak Baara mi di sama rakk kalaamu am li Moustapha ak Mouhamed sama tijaan bi nga xam des fois sax day dama ko yóbbu cant gi muy aw. moom mii wax dëgg yàlla mm. taaliba seex la waaye des dama koy awloo cant gi. macha allah moom mii. Mm-hmm. moom ku ki ñaan li ñuy waa juróom baana meer bànn di leen bëggee baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. du nuyu ñëpp daal di nuyu waa unité vingt waa unité vingt ma seen fay lu ma jug fu ma dem ñoon ak man lu ma takk ñu takk ci fu ma jug yëkkati leen mu dem sant du ma tànkam lu benn yoon di leen cant di leen gërëm. di leen ñaanal taysir ak tawféex rek waaw. ayca merci beaucoup ami internet yu ñu doon seetaan à travers DS Prod euh, dañ leen di kontaane bu baax a baax man nag may euh, sant bu baax sama tailleur bi di ko gërëm bu baax a baax nee naa ko moom mooy borom ciseau magique bi day dagg te du dëng di omb te du mbaq. ma koy kontaane bu baax a baax a baax a baax yoo xamante ne yàgg nga maa defal lu baax mais di kontaan bu baax a baax ci madame ñaa Marie Ndoye di ko bégee bu baax a baax ci maquillage bi bég naa ci moom lu baree bare di ko kontaane kanam gi bu melee nii ba neex a xool yow la borom Paris la France maa ngi lay kontaane bu baax a baax ay ca kon mu ngi noonu yoro yoro kontaan naa ci yow wax ma sa tur de yoro bég naa ci yow ah marinière bi toog na am na nu mel am na melokaan am na jikko yéen ñu ñu doon seetaan merci beaucoup cant ak ngërëm ñeel na leen on jaaraama lañ leen di wax àlla baax ka njoo ko jël jarabut léegi nag euh, dañuy joxante rendez-vous beneen yoon ñu takkuwaat ba dëgër dem seet yeneen daanaan ay ca ñu ambiance rek daal di koy tëjee suñu programme foofa jooy laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa illallah la ilaha illallah la ilaha bismil ilahi al malwai bila manaya wal intihaya أدرم قلبي بالاقتداء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لو شكوري بلا كفوري وهو النصير من وقف دايا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لك رداي لك سناي لك تجاي ما اقتدايا لا إله faxir dafay nango daga la ilaha illallah la ilaha illallah nangul ñu lépp lu la ñaan ndax yàlla naatal xarnu be la ilaha illallah na faxir dafay na ngor daga la ilaha illallah la ilaha illallah nangul ñu lu la ñaan ndax yàlla naatal xarnu be la ilaha illallah la ilaha illallah aga ke am di Mustafa mi yàlla jébal xarnu be la ilaha nekk marwa tak safa la ilaha illallah la ilaha illallah aga ki am di mustafa mi yàlla jebal xarnu ba la ilaha illallah la ilaha illallah aga ki imbalem rakam ak seen bayu nu a la ilaha sarax ñu naatal xarnu bee la ilaha illallah la ilaha illallah mboole murid yépp ngi tuub di rëcc bàkkaar yi nu jóor la ilaha illallah la ilaha illallah balu nu bay bay dunu gob sarax ñu naatal xarnu la ilaha ta sa njaboota wa di la la ilaha illallah ngir yaa ma def antal peret may lopato wa xarnu be la ilaha illallah rasulullah la ilaha illallah ya muhammadu rasulullah yàlla la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah ya muhammadu rasulullah yàlla la ilaha illallah muhammadu rasulullah محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله مام Cerno Ibra Faty sa dundu gu njariñ la yow la nuy bége Cerno sa dundu bi maam Thierno Ibra Faate sa dundu gi njariñ la yow la nuy bëgg sa dundu gi njariñ la yow la nuy bëgg maam Thierno Ibra Faate sa dundu gi njariñ la yow la nuy bëgg maam Thierno Ibra Faate sa dundu gi njariñ la maam Cerno borom daaro sa dundu ga njariñ la yow la nuy bëgg maam Cerno Ibra Faate sa dundu ga njariñ la yow la nuy bëgg aya so daana Sudan leen déglu Musa dug leen wax ci boroma aya ma wax ci boromam ma jóg gañ ga ña daaway nga ndi yonen ba yonen fal ko muy xutbul boromam li tax way wi wolof tama dégg yaaram dama narga ñu jàngul xam ma kañ ko te way ko ndaxte mu dolli may may géwél sañ naa wëreelu kañ boromam man ni tili fee jaloorem te sulli fee te waxar ba ya tax ngeen xam boromam te xëcc yàlla fal xam nañu makamam ca walliw yaak ca xawsi ya ca diiwaan ña xam yàlla ña xam yàlla ña xam yàlla ña xam yoonen ca baawo ba tey kenn jaar mm. rogul fa mu jaar boromam te wax ji moo ko wax ba ko noon ku di nga wax ji moo ju ak fu nii laa seeti waaju mel na ji mbër woyof na ca kaw te diis na ca biir boromam fu ni raaseeti waaju mel ni ji mbër woyof na ca kaw te diis na ca biir boromam fu ni raaseeti jant bu jëm njallar tey leeral be bépp gox tey kennal boromam boromam Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba nam de ku dem duy ku soobu na mees su génne xam boromam boromam borom Touba borom Touba borom Touba borom nam de ku duy ku soobu na mes su génn xam boromam borom borom Touba borom Daaru Shikore borom Daaru Shikore borom Daaru Shikore borom Daaru Shikore borom Daaru Shikore borom Daaru Shikore borom Daaru Shikore mooy sama géer gi may way du déglu géwél bu xol ba tilim fayaasin daaru nooray ne borom daaru nooray ne borom daaru nooray ne borom daaru nooray ne borom daaru nooray ne borom daaru nooray ne borom daaru nooray ne borom daaru nooray gore nga gore nga yar nu yor nu ëpp nu di ko wër ci beneen réew tabe nga la ilaha illallah illallah babulahi gore daaru sëriñ bi ñoo lay dagan gore nga di la xaaran a ñaan tabe nga la ilaha illallah illallah daaru gore ka ñaan gore koo gis tibbal ko yërmande tabe nga la ilaha illallah lalaay baabu laay gore nga la illallah baabu laay gore nga lalaay baabu laay gore nga mam jaaraama borom thank you borom jaaraama borom jaaraama borom jaaraama borom bëgg nga de ah.